Wa Sénégal kuy tas ses cheveux xanaa xeer Christophe fournisseur en gros et détail de vrais cheveux vierges 100 naturels naturel Rémy bu ay professionnels reconnaître ndax qualité et garantie xeer Christophe la première marque de cheveux naturels du Sénégal depuis 2009 ngir am ci cheveux frisés raides semi-ondulés bouclés closure bas perruquier, tambalé côté 8 40 pouces le yomb dangay de doxantu ndànk ba si représentant Xeer Bay Christophe yi fenêtre Mermoz Parcelle Asseni, HLM Grand Médine Wakam Point E Saly ak 77 102 06 82 77 102 06 82 Christophe c'est exiger la qualité de vos cheveux naturels. sañse spécial tabaski Fatou Kassé avec Khadim Kassé ki nga xamné ku jóge ci mom da nga am ñaw té kenn du leen ni ñaw sama gaay xamul won jong couture la té ko jigéen ñi ci tabaski bi da leen beral la mais de seen grossiste ci walu sañse wéddi gis ci xoolal rom rouge bi mu pot ci ak tin ak bazin ak pro de 217 jong couture dal mooy ki sagal jigéen ñi dinañu langal coupe du Sénégal boy naar jéem ma jaar yoonu ndam top tànk juma ma jaxate ciow li ci robu rouge bi pënd bi wureegul mu tàllal robe jaune bu la ànd ak patching di luye ak jesneer ñu brodé ko petit fil plein xanaa xam ngeen ma borom baatu wurus bi téye suñu loxo woné lañu ak burul ay ni spécial tabaski spécial sañse spécial taar kaay dafa xew motax jong def bazin def brodé gros fil trois couleurs boole kook jupe bu bari feem ture lañu wax Lolo waral Ndiogou Couture génn fii ak trois pièces jesner bu bees bii tudd J'aime gagner faux rire ñu gën ko xamee ci Macky am na ndam daal am talent teg si galant moo waral mu def robe basin bu mauve boole ko jupur bu jaune or ñu daamine ko ba mu mel ni jant ba sumo la taamu ci tabaski bi boole ci jupur poché ak bazin riche bu ñu perlé. modèle yi yëpp am nañu ndam waay gàcce ngala ma jongo couture waaye grand boubou Getzner blanc bi ñu broderie 217 moom tamit am na ndam de na ràpp ak jàmm tendance bi tey baas la ba léegi moo waral mu taamu ci couleur rouge bordeaux ak broderie gazon perlé ciy jongu couture

su ma paree ci loolu damay dem ci Alassane Cissé moom mi nga xam ne moo solal mannequin yi ñu exposé du moom rek de jong couture mii ñëw def ba mu baax wane tabaski nan lañ ko war a sañsee ak nan la na wanu daagoo tàccul leen ma jong waay ndax concours sañse spécial tabaski du amel kenn àq déedéet d'accord ngeen d'accordu leen aha ñii may bëgg a wax nii nag musuñu maa néewal ñii may bëgg a wax nii saa yu concours sañse wootee rek muy noor muy nawet dañ may teewal ay kàngam lañ naf yoo xam ne yu yàgg am bés yu yàgg xam bés xam sañse xam ñaw ci fànn yépp ma dalal ak jàmm sama membre du jury Amadou Diop laa njëkkee bu daa fashion wane sa bopp yaayi ndiir yaayi design Lamine Diassé bu la maison Lamine Diassé bismillah ci plateau concours sañse dama dama indi woon sëri ràbbal nag fasiyene yéene ko lal pour tagal mais dama faté nuñu ñuy jassé ndax mën nga ma cee jappalé day asu ni na la bayil togn nak <laughs> wa d'accord amul problème Amadou Diop Diop ba yow les spécial tabaski la ñuy ngay sol xaftaan ko di di yaatal bir di fi spécial lek de spécial tabaski lañu woté dal ak jam da ñu lay sant la sa bour bu lay yegsee seet la kagn nga war ka meuna dal dalal te comme que spécial tabaski lañ wax mhm. ta tabaski lek ak nan ak sa rek la senegal jëm ci kanam motax nga def ni waaw def len ko tay nak dama contane parce que kima am sama plateau du ku ñi faral di gis fu ne yaay ndoy yaay ndir tité ko wax ah, du man de waaw lolou deug la dalal ak jàmm ci concours sañse merci Ndeye Astou merci kontaan nañu trop ci gis la ci plateau bi tey. merci merci maa la gën a kontaan. noo noo gisee plateau bi nag. déjà plateau bi moom macha allah euh, coloré ngeen ko de defar ngeen ba mu baax gis naa défilé itam rafet na lépp jaar na yoon. te euh, nii rek la mën a mel ndax yow yaay yow yaa ko présenté. ku ne ak bësam man waxuma ko de waaye bësu tabaski. dafa doon bés goo xam ne bésu tailleur yi la bésu créateur yi la am na ci bëri ci ñoom bu ñu déggee concours sañse ñoom ñëpp koy songandoo man nag duma wax jeune créateur parce que création amul âge buñ ko songee nag ñu tànn ci juróom-ñetti créateur ñu ñëw wane seen bopp wane seen mënin ak seen xam-xam ndax tabaski dafa doon bés boo xam ne ñoom dañ koo fonk lool dañ ciy profité nag pour wane seen bopp wane seen créativité wane seen originalité wane seen coupe ak finition waaye li ma jaaxal ndax dina am fu ñu jaar jury bi wala ndax jury bi dinañ d'accord concours bi spécial tabaski spécial concours bi juróom-ñetti créateur ñoo jóg indi ku nekk ñaari modèle ngir présenté ko suñu juri bi jongante bi tar te taaru buxante bi yaa nji ci suñu kanamu jury bi am ñu ne taille basse taille élégance ñi la def robe ngir dara bañ a yomb numéro 1 Alifa Ababa Couture Mon góor la njëkk a ci spécial tabaski bi dafa jël palmaan solal ko ndaanaan jox ko lépp lu ci war ngir tendance près du corps broderie 217 à manche veste aubergine bi safna na ñu xef xippi mu mademoiselle en dentelle ngir soxna si tàng jër te tangay du robe une manche taille soutien doublure soie ak finition argentée bu raffiné numéro 2 ma amis special spécial tabaski spécial sañse spécial jigéen la kii def indi ñaari jongo ma ñu téwal kenn ki daagu ak taybas ben manche bu amul bolé ci pur ak jesner noir blanc def ci souf jupe traîne keneen ki woné boppam ci til pailleté sango robe haute couture saumon noir bu bari ñam bëri fen waañ week sañ seem ak feemam tàkkusaan tàkkusaan tay bas tay maam bëri ni jine numéro 3 Baye couture Baye Thier wala bay Bazin ndax yaakaar yépp Bazin la ko solal bi mu def robe Bazin noir broderie 217 njukkalee ko ben bande dorée felo ko ak strass beneen bi mu fële ci taille babette bu rose clair bu mu tawo jupe jël 217 am ko ak ay motif rose fichable numéro 4. You création ku wax été wax couleur ku wax yu wax sañse buy ray-ray mel na robe bu xonk bii mu garniture ko ak jour ak yu pur ba garniture fu dara nekkul ngir jury bi gën ko ràññee mu génnaat ci taille basse bleu bii jël ju pur dubale ko soie ba ñu ànd di ray-ray lii lu koy fay.

tàggoo ko ak robe longue bu fës ganila rouge bu nu patché ak brodé vert fluo. jigéeni Sénégal la yàlla taal ndax taaru ba xaaru sante mu baax dox dox bu ndaw wax wax bu sew dina ma mun ak dina mari daaray Baye Aziz Fall daaray Baye Aziz daram du sedd dara du leen këf moo tax ñu jaar seen yoonu bopp ba fële ci benn tenue bu fësal ñaari création benn patch jean léger ak vax am ñaari haut yu ànd ak jupe droite tollanti ak benn taille maam trois quarts bu wàcc ci jupe numéro 7. lii sa couture ñoom nee ñoo langal xale yi ndax sañse amul âge moo waral ñu jiital xale bu góor bii soppi ko ndaanaan ak obasanjo bu gris style trois quarts indo toftal ci benn jongama buy daagoo ak taille basse double vallon bu am couleur yu maase ak été bi ku doon laajte xale tendance xale sañse numéro 8. une Couture saa suñu wootee concours bi am ñu wone seen tay wa tiwa won Couture ñoo teewal góor ñi solal kenn ki grand boubou 3 pièces coton suisse bu ñu broderie 217 ba ku mu romb nga wëlis defal keneen ki 3 pièces caftan bleu bazin riche bu riche, comme suñu jongante bi. jigéen lu suñu jury bi di def ba génn fii ñett ñiy qualifié atte mosul yomb tey daw waaw dellu siwaat nañ ci plateau bi Lamine euh, dama leen laaj ndax euh, créativité amoon na ci modèle yi ñu jot wane léegi ci xale yi waaw astu euh, créativité am na am na ci xale yi gis naa ci loo xamante ni euh, maanaam c'est la base li leen manqué actuellement euh, bareetul ils sont sur la bonne voie maa ngi leen di encourager bëgg nañ lu baax mais aussi il faut que ñu comprendre que c'est des jeunes et boo nekkee jeune da ngay accepter ni da ngay jàng ndax boo nangoo jàng rek moo lay yóbbu fu sori. te li ñuy def nii lu rëy la ndax ñun ci lañ déparé. Amadou euh, dafa mel ni spécial tabaski bi dafa gën a incité xale yi ñu mel ni ñu rakkaaju ci ñëw bi parce que dafa mel ni moom dañoo dese wu. waaw Astou li nga wax dëgg la parce que li ñuy faral di wax euh, xam nga sénégalais dañu bëgg euh, solo donc bu ko defee tey jii atelier couture boo ci mënti dem commande yi. C'est actuellement euh, c'est normal parce que sénégalais bu na sol lu best parce que bëss bi mo mel nonu ndax dañu ne bu bu tabaski joté lu sol lu sol lu rafet sol lu sénégalais fa la wané sen ma ci am importance xalé yi dañ leen concours concours sañse bi nak tey jii fi mu nekk actuellement dañu nek ci présélection bi mais né da fay jëm ci volet bo xamante da fay gëna sérieux di gëna metti waaw te jury bi ni ma lay gisee nii amuñ ben yërmandé ci ni ñuy noté tey jii nii euh, su ma doon joxé tay ci l'ensemble des collections yi nga xamante mom lañu gis tey jii nii ñu présente ko ci 8 candidats yi su dee sur dix quatre lañ leen di noté su dee sur dix quatre laay noté du vous bu fekkoon te examen quatre personnes nous am quatre personnes ont am oral amul d'office. amul d'office Il d'office amul. a na de yow mi yow jigen nga da ngay évoluer ci kon sur 10

tabaski àjjana jigéen urul ay ni lu yàll boole boole ko du jafe pama daf ñuy woyal jigéeni urul ay ni yooyu ci àjjana ma fàttali ko nag pama moo ñuy animel saison concours sañse bi yépp waa pama dama laa bëgg laaj benn question jigéeni urul ay ni nu muy mel pama lu ne yaa fi genné wa nasu rulaay ni bok na ci misal mi am bët yu taru melni ni soyos yi déet waay waa caméraman dama bëgg ngeen jéxal ma ci biir public bu yànj bii parce que seen naafi ay urul ay ni yu bëri dama bëgg ngeen jeexal ma leen génneel ma urul ay ni yi ne ci biir public bi loolu laa bëgg xollu burul ay mi mooy jigéen ju taaru bokk na ci misaal mi ami bët ju taaru ami yaay ay mi sa xol day xol yi day raxas tigi bépp gàkk-gàkk gi boo ci lay projet fee ci géeju ci nuru di dal sa bët la ndee seetu la seetu xaalis la man ak yow la urul kulli day raxas tigi dépp gàkk gàkk gi sa bët ba fa am xafe bu ñu ko saafe am aram bi ñuy safane bu ñu àdduna safe sa bët di palanteer da ngay ubbi palanteer beex yegg si xol bi feex si urul ಪದ ತುಟ್ಟೆ ಒಂದು ಮರೋ ওরে ngir mottali urul ay lo taro taro, buat taaru boo ci xaadim kase sa taar yokku yàlla dafa maye moom mu nangu ay loxom it nangu xaadim woote sañse mbooloo fekk si ko su ko ci mën ñawam spécial tabaski dem ziar ko fële ci kàmbareen stylistique jërëjëf na su maa ngi lay fay bu baax baax baax di nuyu sa publique bu yànji boobu nga nekkal vraiment kontaan na si bu baax a baax a baax a baax tey nag da ngeen woote sañse sañse ngeen woote incha allah di ngeen gis sañse bon maa ngi leen di présenté modèle bu bleu bi bleu turquoise bi ànd ak doore bi ak tuile bi boo gisee foofu yére bi maa ngi ko def coupe perlage bi rek laa utilise bi ma utiliser perlage bi maa ngi maa ngi utiliser til ci ginnaaw def ko genre que bu nekk ci ginnaaw mais mu ngi nekk ci biir yére bi verre bi moom tissu bi rek la ñu ko utiliser tissu rek ci til rek la utiliser amul garniture amul dara coupe simple franchement mu ngi nekk robe ci biir robe droite bu jël taille taille cigarette bon ma def traîne ci ginnaaw mais même traîne bi tam ñu ngi ko liggéey ak tissu bi muy vermante bi am na tam ci derrière bi robe bi nek ci bir moo train bi dogo a tegu ci kawam ñu def patron sans garniture parce que modèle la yu ma préféré won ñu defar ko sans garniture bu bari mu nek ay coupe yu tubaabe rek bon ma ngi def mbasin tam bo xamné dama bolé mbasin ak cin ak des petits bouquets mais yu yu raab ci rafet franchement parce que euh, liggéey la boo xam ne moom tam sentir naa ko parce que li ñuy boole Sénégal li ñuy boole tissu basin ak til bariwul til yi lu ëpp dañ koy boole ak euh, tissu perlage yi ak yooyu noonu mais bi pas dama ci génn basin parce que tam basin dafa nekk tissu boo xam ne at tout moment dafay nekk en vogue moom doxee wi bon kon mën na ànd ak tissu bu nekk nag. moo tax bi ma amee tuile bi tuile dijaayeen bi ma fexe bolé ko ak bassin liggéey ci lolou té défé na rafet na si yéen si yéen parce que maa ngi ko def tay basse euh, crop top ak jupe taille haute bi maman bay sol maa ngi ko def dafa jupe euh, taille haute ak euh, crop top bon jàpp naa ne rafet na daal. bon Bobu, jupe bi tam paillette design la paillette bu raar nak paillette design bon mom la bolé ak au soir mais soir bi soir bu jaune la bon defat découpage ci kaw ci dënn bi design ko guéné eh, ni mu ko war a eh. bon kanam bi mu ngi nek tay bass tay tay tay bass mais ginnaw bi mu ngi lay jox Les maa qui ci le euh, vert vert noir mais beaucoup maa utiliser trois couleurs vais utiliser euh, vert utiliser noir utiliser rose fuchsia bon je ma la def mu nekk rose fuchsia ma def yére bi mu vert mais ma monté design noir si c'est ci taille taayu tey les maa ngi siy euh, robe rouge bi bobu mom ngi robe mais souf bi tam la ak basin kaw bi ngi et bi tam design bouquet euh, design yi mom def ci def ay petit perle ci bon ñaw yi ku si bëgg nag mën nga couture mu ngi nek Cambérène 2 bu fekke ni ci case bi ngay jugge deux voies yi ngay dugg rek bo rombe cimetière yi di nga ñu trouvé su fekke ni Pikine ngay jugge côté pharmacie golf comprendre nga côté yoy bo accès ba pharmacie golf Nations Unies après Cambérène 2 mo ci tegu bon numéro téléphone yi tamit 77 558 72 16 wala bo xamné benen bi mu ngi nek sama numéro assistant Samba la tudd mom tam bu ñu ma woowee jotuñu ma moom mën nañ ko woo parce que maak moom ñooy liggéeyandoo ci côté boobu moom tam numéro mi ngi nekk 77 735 04 00. bon nasu, loolu laa la indiloon maa ngi lay delloowaat sa antenne di leen ñaanal jàmm ju bare bare bare bare. ar ar ar ar ar doo pa doo paade koye desile o ara ara koye desile min payi ñow si des koye si desile bi kay woni sa bopp way xam nga li moom mu metti si yow nag ñëwal sa xam nga si jikko bii day tax ñun ñaar ñëpp ñu jéppiñ yëpp daay man Aline Ndiaye nii dinaa ko ki kii dëkk bu maamam maamam Brésil la jóge yow xamuloo ko sax ñëwal ma ngi lay tagal nak nga so he an ar nga ñabu dekk le la eh yor wat ses rek yoro hein man la dum moy sam moy la dum moy sama mas la dum moy xari de ngir yalla nak tabaski gi ñu jëm ni ko ñi ah waaw da ngeen wutal jigéen ñi ay ay laadum sax. la tàccu leen loolu ah yaay yi. waaw waaw. laadum. waaw yoro waxoon naa la ko léegi dama la koy waxaat man laadum mooy sama maas. bi damaa xam sama bopp damaa bëgg sama bopp. laadum nga wax. <laughs> wane na boppam <laughs> waaye Aline moom dama xam wax di da ngaa wax rek mu tontu la <laughs> kaay dem ñëwal nga gis la. jàppale ci yoro ngir yàlla. wéeral waaye. yoro moom jam na jaay affaire doole. eh affaire doole la may. yoro wata ar gaay de. bul waaye yéegal fii du la def xoolal man yéeg na maa ngi nii. ar sere wala décelé. dañuy daagu ba ci Adja Thiam borom Yacine coiffure ndax ku ko dénk sa bopp doo ko rëccu. saa y événement amee bo démé yassine coiffure bo jëlul rendez-vous do dugg ci noonu sama wax du sore dama len di bay ñu découvrir leen ko ci façon glam. waaw jërëjëf Nastu ma ngi kontaan di ñëw ci plateau concours sañse concours sañse mom ku ko indi Sénégal mom ma xamné affaire bi dina jaxaso parce que fi ñëppay sañse ñëppay defar ba mu baax fii nag tey complexe Yacine ngeen ñëw ku bëgg jàng école. boo ñëwee ma jangal lima lay won la lay Jigen dal di jinne bu tay nga mer bu suba nga be jeune di ma géet soppale ko nii jinne école de couture ngi fi ku bëgg sol yéré ma solo la yéré defar la ba nga baax boo xefee mu poose nga xiif mu gërëfee. gis nga lii euh, yëre marié la euh, gis nga mu ànd ak coiffure bi tenue mariée nag am na plusieurs façons bi taille basse la ñu def ko benn mbagg. bi robe taille la ba pare dañuy def finition brodé Marie Gueye Marie Gueye dama koy tudd ndax sama cousine la moom mooy def brodé yi du ay mbasin rek la complexe yaa defar dañuy coupe boo indi sa chiffon sa soie. dentelle de Calais dentelle l'eau indirecte, nous ñu fait. Ce dentelle c'est très joli Nous avons ko aram couleur yi dafa flashé été la ñu couleur yi tout noir chiffon chiffon de soie chiffon de soie en noir et blanc ñu bleu cassé ko ci man damay osé couleur yi ma la petit fil petit fil euh, très belle def finition Marie fan yi capuchon capuchon était capuchon été la bu ngeen dentelle la xam nga capuchon dañ koy gëna faral ci hiver bi mais été bi dama génn fi, génn fu tak. am salon de coiffure ku bëgg defar sa je ma sa grosse tête la gis nga ni mu rafété, dañu dag ci comme été bi ci été bi dañu dab côté euh, perruque cérémonie comme greffage dafa a euh, euh, li nga defal ko perruque dañ ko def perruque ba paré ko ko cérémonie bi bu ñëk ba dañ def chignon di tiré li dañ ko tissage dañ ko greffage même bo amul karaw dañ lay tégal greffage ba defal le chignon ñun nak une naturel la

ku bëgg tam ñu defal la perruque mi ngi tendance tabaski ci complexe Yacine ku bu Wilneston laa def parce que dama xaw a tàng moo tax ma def ko coupe bi Wilneston la man nag couleur noire laa def comme nga comme mag Magbour la man couleur naturelle laa def couleur couleur bi dafa flashé ba pare moom elle est claire moo tax ñu tegal ko couleur blonde carrément blonde am na boutique moo xam ne day jaay cheveux cheveux yi may jaay cheveux dafa bari réclamation cheveux naturel bari na ku ci nekk naan sama ko jën tey mu yàqu tey découragé ci cheveux bu kenn découragé daw si leen ñu seet si ma bu ngeen ma seet si dinaa leen conseiller jaay leen lu baax. Sky mi Yacine xeet daal ku fi ñëw moom di nga xam ne di nga am lu baax te garanti lépp lu nga xam ne itteel na jigéen rek boo ñëwee complexe Yacine fekk ko fi complexe kër Xaadim la nekk. cité xaar xaadi moom tali HLM Grand Yoff bi en face brioche dorée 33 827 81 29 77 860 26 32 moy complexe yi Assainies. waykat bi nee bu ñu xëccoo wurus ku am ngalam doo ñàkk man ma ne bu ñu xëccoo wurus ku am njaateraange doo ñàkk ñun jigéen ooree sunu xarit. te ñaan teraanga mooy xaritu or moo ñuy yokk cas ngir suñu sañse gën a fës nañu ànd seeti ki yor teraanga ak jàmm jigéen ñi ndax woote sañse borom wurus du ci mës a rus. asalaamaaleykum Massou maa ngi leen ziar bu baax a baax yow société publique boobu man la Moustapha Diagne Teranga bëgg leen présenter sama donc maa ngi nekk mu acheter leen. cinéma Roxy premier étage numéro 63 ma bëggoon leen présenter nag suñu bijoux yi am nañ bijoux en or jigéen daal di bu tayee nga meere bu subaa nga tubaabe jeune di ma gétt soppale ku ñii di ne jigéen daal di boo xefee mu poosa nga xifi mu gërefee am bët ami weegu du karaw nii jinne waañ weeg seen seem taj wi ak feemam tàkkusaan tàkkusaan tay baas tay maam ndax la ndar kam waaye bu lu leer nañ taaru ba taaru sañse ba mu baax am nañ bijou en marge am nañ bijou max size am nañ ay montre tam yu am classe yoo xamante ne boo sañse ba pare gis muy dem war na ko am muy góor muy jigéen bu dee góor war nga ñëw jëndal sa soxna bu dee jigéen la war nga ko am pour en cas dara du la bett ndax lépp loo sol lu mu rafet rafet te tappoo lu baax tam lu ko génnee mi ngi mel ni xorom ci cin mënta ñàkk xam nga ñu leen présenté nag suñu bijou yi nga xamante ne nii c'est des top modèles gozo fue licor 77 456 86 63 wala nga def 70 792 25 25 képp ku fi ñëw bu soobee yàlla lépp loo bëgg ci wàllu accessoire di nga ko am kàttanu suñu borom. waxu démb la wante dëggu tey la nee nañ koy xalam da ci jaayo barke ba yaay borom te Sénégal bëri nañu ay royukaay moo tax tey ci bésu spécial tabaski. dañuy dem seeti euh, ndaanaan bu mag boobu di Juma Jaxate ziyaar ko jël fa coupe du Sénégal jëbal ko Cheikh naa Jaxumpa ndax dina topp Juma ba du def njuuma ndax Boy Naar dina jóge ci langu coupe du Sénégal bi di bàkku Boy Naar tëyal sa segoor nafsu ku nekk ak nekkee mbër man lii laa xam Tay nak da ma défier ci modèle mama djuma djeng Diakhaté ci coupe du Sénégal ma war len andil tay bass volant jupe bu tok yang ko ñëwé ba teg ko du ngeen xamné bi mama Diouma ñëw ak bima ma ñëw ndax dafa am luma sama xaritu lawbe ba waxon muy kumbel sama xaritu xol néna mo won woon coowal ci li ci taal du ci li ki teg ci li la té tay yaakar na tay boy ngeen war andal, borom boy fashion le roi di Taïbaas loolu Ndeye Diop ma ko waxoon ma fas yéene leen génne tey ci ñu dem. dañuy enchaîner rek dagg euh, taay bi comme Taïbaas rek ci taay bi la ñu njëkkee quoi ñu génnee suñu taay. jigéen daal di ne bu tayee nga mer subaa nga tubaabee jeune di ma gee di soppale ko nii di ne jigéen daal di ne boo xefee mu poosa nga xiif mu gërëfee am bët ami wegg du karaw nii di ne waañ weeg seen seem taj wi ak feemam tàkkusaan tàkkusaan tay baas tay maam bëri mbubu nii jinne d'habitude man su may dagg jupe damay bàyyi réserve bu bari quoi comme jigéen ñi moom du ñu toll benn kii ñuy bàyyi xel ci loolu tamit di bàyyi réserve bu bëri ci jupe yi quoi sañse ba mu baax dox dox bu ndaw ñëw wax wax bu sew jinne may mun ak jinne mariama jinne bintoo jinne faat dagg nañ suñu taay dagg suñu volant dagg suñu manche léegi dagg nañ suñu taayu jupe dagg volant jupe bi léegi li des mooy toog ci machine bi fas yéene ko monter yëpp. yakarna mon nafsu model bi mu nga joxoon mu ngi ni euh defena ko comme ni ko beugé model bi mu ngi nek euh, taille soutien ci kanam gi devanture bi nek volant carré ñu plique ko plique bu dijji mu am mu nek vax ak soie ñu def ci soie SS mu am ben genre garniture ku sew mu continuer ci épaule bi ñëw rombu souf taille soutien bi dem ci kaw derrière bi nak mu ngi nek dos casque fermeture bi dafa yéeg ba ci kaw waaw jupe bi ñu ngi ko def jupe taille jupe taille lañ ko def daal di koy France boole kook organza ñaw ko nii daal lañ ko defee nasu comme ni ngeen ñu ko joxee yaakaar naa modèle bi dina war a satisfaire joxe ñëwee naa ko comme ni ngeen ma ko joxee woon mooy remercier ñëpp nag ñu ci jàpp di remercier sama waa association Adama Sarr ay chandoo yi nga xam ne depuis lors ñu ngi fii jàpp jàpp ci sol beeg affaire yi xam nga di remercier sama mannequin bu ñaawul bi Anta Ndiaye waaw may remercier Nafsu di remercier ñëpp ñëpp ñëpp ñëpp waa Pikini production ñëpp ñi nga xamante ne ñu organiser ndax lii lu rëy la. Amadou ñoo ko gisandoo roy ndaanaan yombul de euh, ndax euh, Cheikh Boy Niang euh, defee na ko comme niñ ko bëggee ak niñ ko ko joxee ndax réussir na waaw Nastu ñu ngi leen di remercier bu baax a baax ci initiative bi ngeen jël idée bi muy euh, coupe du Sénégal donc euh, ngeen jël tey jii euh, benn icône comme Mama Juma Jaxate roy ko nag yombul roy ko yombul mom en personne moom déjà moom boo ko rek mode ngay gis rawatina nak ñawam dafa am dafa bëri ay normes bëri ay critères ndax ku xam ñaw la donc ku xam ñaw di di con di consommer li muy sol limuy muy liggéey nga bëgg ko roy doon du doon lu yomb Cheikh nak au départ euh, jaar na ci yoon bi xol fi muy jaar pour jéem copier li mama juma ñaw mais n'ak toujours dama la kay yag wax ne la mhm. nastu mhm. ñaw li ci gëna metti moy mhm. copier waaw waxoon naa ko dama koy waxaat. ndax li nga créer. nga toog di ko créer. amul problème yaa toog di créer di dessiner di ñaw ba nga xamante parce que loolu idée boobu sa xel la nekk. mais li nga xamante ne ki ko créer. bi mu koy créer fekkewuloo ko. mu toog réaliser ko. ñaw ko ñaw ay point yoo xamante ne yow point ci biir sax gisuloo ko. photo rek nga am. doo mën a liggéey liggéey ba am que identique. voilà. donc nak, dans l'ensemble, il a présenté le modèle ci gis-gisam fi mu toll mais nak, amna ay manquement yo xamante par rapport au modèle bi la par rapport la réalisation bi la mais dans l'ensemble, ensemble ci présentation modèle bi il a repris li nga xamante ne bëtam ak xelam foofu la toll ci présentation modèle bi ñu ko ci féliciter, doonul lu yom moy li ma wax toujours reprendre œuvre yomul. Wa lu compliqué la Lamine damay ñew ci yow parce que euh, bëgg nañu xam ñawu jigéen ak ñawu góor ban moo ci gën a yomb. waaw astu euh, loolu dafa xaw question bu délicat la parce que ñaw euh, pratiquement boobu c'est vrai que seetaan naa vidéo bi gis naa xale bi lu mu liggéey mën naa wax ni ñaar yëpp a amul benn bu ci facile c'est-à-dire les gens on tendance à diir ñaw jigéen moo gën a yomb. Euh, donc fofu lañuy resté ñaw goor c'est un peu compliqué motax ñu ci bëri duñ ci duñ ci show dal manam et c'est pas le cas ñaar yëpp boko ko ci yoon rek day daal di yomb amul benn bu difficile liggéey moo difficile mais seulement li tax muy difficile ci ñenn ñi mooy du xam fu ñuy jaar du xam commencement bi man li ma gis ci xale bi booy naar bi naar bi euh, damaa gis muy dag tissu bi ci kaw tissu étonné <laughs> dans la conception manam gis na ko fi muy lalé di dag euh, tissu wax na wax ci kawam di liggéey na selon ses capacités et son intelligence euh, liggéey na selon ça aussi il faut ñu comprendre ko il faut ñu comprendre ko aussi ay lañu mais. Euh, c'est un problème de niveau euh, je pense que dañ war perfectionner seen liggéey gën a gëstu ban yoon la jaar pour am une qualité supérieure parce que li Mama Juma sol euh, man xam maman Mama bien xam naa ko bu baax xam sol donc je sais très bien que c'est quelqu'un qui est très méticuleux dafa bëgg lu baax xam na yére xam na ñëw euh, léegi bi moom copier na <laughs> mais nag copier ne selon comme ni Amadou waxee rek copier ne selon son intelligence et ses capacités. mais <laughs> Lamine di ko encouragé Lamine doguma la dafa am luma ma gis muy mesurer di di di mesurer diagonale bi ni loolu loolu la ñuy wax damay dégg ñu naan patron wala patronage. non c'est vrai xam nga ñaw base bi c'est technique mais ñom li ñuy def ni c'est c'est la main à main ce que nous c'est un système qui est traditionnel dañ ko dans le tas mais ils n'ont pas fait les écoles qu'il faut pour comprendre cette technicité maanaam la conception d'un produit d'un vêtement Nous je pense que xale yi bu ñu modélisme euh, Sénégal vraiment mode de gën développer parce qu'ils ont le talent ils ont l'intelligence ils nañu liggéey volonté Ils ont nañu base bi li leen que rek manam jaar ci yoon bi parce que ki limu mu liggéey bu jaaroon ci yoon bi day daal di parfait donc moo tax may la xale yi dañu jaar ñu encourager leen gën leen a pousser mais aussi conseiller leen pour ñu gën a xam ni ñoom dañoo war a continuer di jàng ça c'est extrêmement important. loolu neex ma parce que looloo tax ñu teg leen fi pour ngeen woon xale yi exactement nan la ñu war a doxalee yaay yi yow lu ci bëri dañ lay gis nga ñëwal jigéen ñi xaw ma ndax di nga ñëwal góor ñi am déet. ba pare ni ko Lamine waxee yaakaaroo ne ndax xale yi dañuy gaaw a berul torop walla dañuy yàkkamti loolu daal laa bëggoon nga sànni ci tuuti kenn. Ndeye Astou euh, wax nga dëgg bon ñu dañuy ñawal jigéen di ñawal góor tamit euh, parce que ñi ñuy ñawal tailleur yi ne ci ay si atelier bi dañuy dañuy euh, dañuy am touche. si mën a jigen ak ñoo xam goor lañu gëna ñu gën ñawal donc ñun ñooñu genre yoy yëpp lañu leen di recevoir pour di liggéey ak ñoom maintenant comme li Lamine wax lool tam c'est important mais man problème bi ma si gis moy amuñu occasion peut-être wala capacité pour ñu duggal ñu bëri ñu duggal seen doom yi ci école euh, pour ñu jàng école formation pour ñu pour ñu former leen pour ñu jàng ñaw sinon xamna nekul nekkul ne dañuy bañ pour def loolu mais euh, peut-être euh, amuñu euh, renseignement yi nga xamné mom lañu wara am wala peut-être amuñu amuñu facilité benn bi pour fayal len wala yu demee noonu mais c'est important parce que Sénégal wax deug Yalla li xalé di liggéey xam-xam biñu ñu démalé sen bop parce que non la kay tuddee parce que demuñu si si si yenn école yi pour des formations donc ni ni ni ni ñuy ci si ak ni ci démé demee leen yóbboon si école yi jàngal leen bu baax défé na loolu leneen lañuy wax. loolu yëpp xëñ na xëjul fi parce que peut-être que buñu démé ba ci demi-finale bi ñi qualifié demi-finale dinañu am sérieux problème parce que il faut ñu jaar ci yoyu hein, ah, doole leen ko baal. wa Sénégal kuy tas sen cheveux xana xeer bay Christophe fournisseur en gros et détail de vrais cheveux vierges 100% naturel, Rémy bu ay professionnels reconnaître ndax seen qualité ak seen garantie Hair by Christophe la première marque de cheveux naturels fii Sénégal depuis 2009 ngir am ci cheveux frisés yi raides semi-ondulés bouclés closure bas perruque yi tàmbalee ko ci 8 ba 40 pouces lu yomb la da ngay doxantu ndànk ba ci représentant Hair by Christophe yi fenêtre Mermoz Parcelles Assini, HLM Grand Médine Wakam Point E Sali,

pour préparer sa tabaski doo ko rëccu ndax sa tàkkusaan dina rayi rayi salaamaaleykum waa Sénégal ak waa àdduna ñun la waa Sopp Nabi Mandiaye frère ñoo ñëwaat di leen présenté suñu modèle yu bees yi si tabaski bi ak euh, aji màkka yi Nastu maa ngi lay nuyu ak téléspectateurs yi ak euh, ñëpp ñu ñuy seetaan

disquette jeeg ñëpp am nañu pour pour ñëpp couleur boo bëgg aussi boo ñëwee fii si sopp na bi boutique di nga ko fi fekk. waaw ñu ngi fi marché HLM ruq black and white yaakaar naa ñi ko xam bari nañu ku fi ñëw daal di nga ci di nga fi gis sa bopp xale mag ku mu mënti doon. Euh, loo bëgg daal am na fi couleur boo bëgg aussi am na fi talon façon boo bëgg am na fi talon carré aigu comme carax lépp lu waaye bëgg boo ñëwee fii ci Sope Nabou boutique Mandiaye frère di nga ko fi fekk soo demee tamit ci biir am nañ fa place di nga fekk ku mel ni madame Diop Oumou wala ñoom jaga jiili waaw macha allah daal ku fi ñëw ci tabaski bi di nga fi am li nga bëgg jëndaale pour sa tabaski jëndaale pour préparer se gan yi dem màkk. gis nga exemple ensemble ngi nii bi talon bi gudd na ku bëgg tamit am na bu ko gën a gàtt mën nañ la jaay aussi comme pochette kese wala dàll kese. gis nga bi tamit beneen ensemble la mais mën nañ la ko jaay lu ensemble talon bi mo gëna gatt gàtt bi ma leen wan sànq bii talon bu gatt la bu xawa sew bu la nexé it talon bu gëna dijj bi amna bu gatt toujours cerax yi tamit ñi ngi fi mën na lakk yàpp mën na tek euh, ndékki manam dal lo ci xalaat rek lo ci sentir def ko ci mu ngi ni gis ngeen rose claire mi nga xamne dafa xew ci jamono rare waaye bo ñewé fi di nga ko fekk couleur bu la jaaxal daal boo ñëwee fii si Sope Nabi boutique Mandiaye Frères di ko fi fekk bii tamit carax la doré mu ngi nii multicolore ci kawam loo sol mu ànd ak moom te du la sonal ñi nga xamante ne euh, fooruñu lool ci cara ci talon boo ñëwee te talon classe la euh, bi classe lay doon euh, te prix bu bu bu xéewale lay doon aussi gis nga compensé yaa ngi pour ñi nga xamantene mënu ñoo dox ci talon bu sew compenser yi mom machallah allah yaakaar naa ñëpp mën nañ ci dox ndax talon bi guddul té posé na fi dal ci sopp na bi boutique ku fi ñew di nga xamne roy du nuro piir original bi fi la am waaw qualité bi tamit fi la am gis nga li ci carax ku ñew fi dal di nga xamne fi rek la ci kese suñuy carax mu ngi ni original bi dal fi la qualité bi fii la soo ñëwee fii si marché HLM di nga ñu fi fekk di nga ma fi fekk man sama nijaay ma jaay ku mel ni Moodu boo demee tamit bu dee Pikine la gën a jege am nañ fa cantine si centre commercial bi cantine numéro 17 boo demee di nga fa fekk madame Diop Fatou boo demee moom it macha allah li am fii yëpp am na foofu bu dee ku mu gën a jege ñi mi ngi fa. suñu numéro de téléphone mi ngi nekk 70 33 824 05 24. Voilà 77 653 08 02 voilà 77 544 69 20 ou bien le 77 218 31 32 Si ci rek bu vous et je pense que vous serez satisfait waaw ngi remercier parce que euh, Nabi Boutique c'est une famille Nous avons fi nekk ak ñu koy remercier moom bu baax ci société bi parce que mu ngi ñuy teg ci yoon ñi ngi koy remercier di remercier soxnaam yi di remercier euh, suñu clientèle yëpp nag ñi ngi remercier ñëpp man nag maa ngi remercier en particulier sama borom kër depuis New York Monsieur Sarr je vous fais un coucou Nastou à vous l'antenne fu mu ne nii ñun ñaa ngi toog sen bop yi metti nañu yeen surtout yeen ah, xamna ne tan bi pour man ah, yombulon parce que xalé yi def nañu luñu mën légui dañ leen di bay rek ah, ngeen dem def sen délibéré ngeen diso ngeen xol ñan ngeen jël ngeen dellu ci wat pama tabaski djegalu balonté ak pama moy génné fu ne tey daa te jeexalee ak maangi djegalu paama kan la tooñ ba di ko jéggalu jéggalu yu metti yi nañ ko may nopp ba xam ndax dinañu wax ki mu tooñ ay aywa paama kodunga kodunga jekel ma jekel ma jekel ma jekel ma dugna ko dugna ko dootul amati yow maa ngi jekelu Jepeluru nga dëgg bu dëggu bëggantu Pama yo da ngay djeglu eh, man damay ndukal Xeebaay eh, Christophe mi nga xam moy premier fournisseur cheveux naturel fi ci Sénégal eh, di li dalé ci 8 pouces ba 40 pouces mo genn fi ci cheveux naturel Gammo Jaxate euh, euh, hair spa moo génn fii ci coiffure bi moo ko tissé donc sama gars yi képp ku bëgg ci cheveux yi rek il foog nga euh, lijjanti hair by Christophe comme sax nga am ci cheveux yu baax yi naturel ci loolu nag laay wax ak suñu maam di jury bi parce que fu mu nekk nii moom ah Amadou mbaataan bi méttiwuloon waaw soxna Astou ñu ngi lay remercier bu baax a baax tànn bi moom métti woon na trop na métti woon na parce que xalé yi seen liggéey bi vraiment dañ ko doon xoolaat de près te mooy li ma la wax sànq rek bu ma fekkante ne examen bac la amuñu d'office ay oral rek lañu am donc ñi jot a génn ñi ñu ñi ñuy sélectionné ñu ngi war a dem pour war a jaarli ji seen oral après tànn bi nag yombul woon dara dara dara dara donc amoon nañu huit concurrents tànn nañ ci. bu ñu ki ñu njëkk a tànn mu génn amoon problème mais trois candidats yi pour ñu génn ko ci euh, set yi desoon compliqué woon na trop kon nag damay bàyyi parole bi foofu nag ak yaay yi mu wax ci li mu ci xalaat ak ñi nga xamante ne ñoom la ñu sélectionné. waaw euh, mais balaa may jox yaay parole damay wax la mit ne am ngeen liggéey kon parce que yéen boo leen liggéey ba pare seen rakk di ñëw ci ginnaaw ba pare liggéey setul noonu man dama ne am ngeen liggéey parce que yéen ñeneen jiitu.

Euh, ñaw dañ koy jàng ndax loo jàngul doo ko tari waxtaan wax dëgg ci la li ma wax chaque jour xale yi am nañu intelligence am nañu capacité liggéey am nañu volonté mais peut-être li tubaab bi di wooy les règles de l'art peut-être loolu moo fi manqué ñun am nañu chance comprendre ko euh, c'est vrai que dañoo xaw a surchargé amuñu temps wu nekk fii di jàngale c'est pas facile mais dinañu accepter stagiaire dans nos ateliers mais euh,

et là c'est pas bon ça devient un blocage boo xamante ni daf handicapé sur le plan professionnel te doo doo ko sentir au fil des années da ngay xëy rek nekk période bi nga waroon jàngee da koy raté et là ça devient un autre problème. benen problème lay doon kon yaay yi euh, fu mu nekk nii ay millions sénégalais ñu ngi lay déglu euh bëgg nañu xam ñeent ñi qualifié donc euh, ñu ngi lay déglu di la may nopp eh, nastu eh, tànn bi yombul woon comme ni ko Amadou waxee ak Lamine eh, mais quand même réussir nañ réussi à yoo xam ne pour sélection bi c'est ça voilà léegi numéro 1 kooku Mahanis Couture la tudd. moom moo présenté collection numéro 2 bi jàll. Euh, deuxième bi le euh, tout Couture la tudd vous euh, ma présenté collection numéro 3 bi troisième bi gagné mi ngi ñu koy Lisa Couture mon modèle def collection numéro 7 quatrième bi qui nga xamné mo moom tour bi mom mi ngi il est temps il est en couture euh mom moy jàll collection numéro 7. félicitations aux qualifiés euh di encourager wat ñi nga xam ne qualifié wuñu euh, ils n'ont pas démérité nak way nak comme niko membre du jury bi waxé rek ñu xarañ ñi tok nga xamné euh amnañu amnañu bëss bu né ñepp ñi xam nañ leen. Euh, bu ñu demee rek ba am ñu ñu génnee am ñu ñu ne waa dem leen xoolaat seen bopp du du nekk mënul leen mais dañoo bëgg rek ngeen dem xoolaat ni ngeen di jàngee da ngeen xam ne jàng du wees. concours sañse day jox bés bi àqam ba mu mot euh, ginnaaw bu ñu leen baalee àq di leen baalu àq euh, di ñaan yàlla yàlla may ñu fekkee déwén ci beneen émission spéciale.

lolo tax ki di Viviane Chidid di la reine du Jolof Bond son anniversaire boobu ci Grand Théâtre dellu na doon reenu guddi sol sumi la fa nekkee woon public bi jox nañu loxo robe soie bu weex bi mu maye ak garniture dorée tulle ak fourrure xanaa neex ñëw delloo njukkal Viviane waral ba Grand Théâtre ak bu am finition yu weex Gogo..! Henriette bu RTS sagal na journaliste yépp xoolal robe jesner bu rouge bu dawal ay fil doore di kase couture moo ak beige garniture ci bi ak on n'est jamais mieux servi que par soi-même styliste bi dëggal na ko tube VIP coupe ak voile la ñawal boppam kii mooy prince u RTS ndaanaan ci ndaanaan yi trois pièces designer vert clair daaminu bu gris bi mu sol fu mu dem bokk sekk ndaanaan wuyoo na turam ndaxte Pape Aliou njaay merewu ko benn yoon toogaay VIP la toog teg ci kawam trois pièces designer bleu ak daamina bu weex ah nabu jaañ bu bamba gay création ken demul mu des xoolal ma bii jesner bu weex taille basse ànd garniture xanaa neex bamba gay moo génnaat fii ak modèle di nabu jaañ bi yoon jesner rose taille basse lañu may bamba amul moroom mati jeng tfm ya génn fii sa tunique tulle noire ànd ak soit ci suuf ak garniture ci mbagg yi baax na Sénégal kuy tas cheveux xanaa Hair Christophe fournisseur en gros et détail de vrais cheveux vierges 100% naturels Rémy pour les professionnels reconnaître ndax saine qualité et saine garantie Hair Christophe la première marque de cheveux naturels fii Sénégal depuis 2009 ngir am des cheveux frisés raides semi-ondulés bouclés closures bas perruquiers, tambalés tàmbalee 8 ba 40 pouces le yomboula da ngay doxantu ndànk ba si représentant Hair bay Christophe yi nekk fenêtre Mermoz parcelle assini HLM Grand Wakam Point E 77 102 06 82 77 102 06 82 Hair Christophe c'est exiger la qualité de vos cheveux naturels.